dafay ñeel euh, tàggat yaram notamment match bi nga xamante ne dund nañ ko démb euh, le Sénégal face à la Gambie trois buts à 0 ñu dóor waa Gambie trois buts alors euh, Saliou de manière générale ban analyse ngay def ci ci match bi nga xamante ni démb amal nañ ko. waaw merci merci Aïcha di di wax ne Sénégal dóor na démb Gambie 3-0. Mhm. li may wax rek mooy la marche était trop haute pour les Gambiens donc un moment ils ont rêvé. de faire tomber les lions donc gis nga communication bi am yëpp ci match bi. Mhm. mais sur le terrain quand i y a y de niveau bien que par moment on a senti une bonne équipe de la Gambie menaçante mais sur deux ou trois actions. Mhm. dans l'ensemble le Sénégal a fait un très bon match dans l'ensemble mais dans le contenu il y a des choses qu'il faut revoir je pense que Aliou Cissé en est en conscient. Mhm. moom mi wax ne il y a des choses à rectifier. parce si en tant match bi boo xoolee da ngay gis ne. Sénégal dafay génne ballon bi avec une défense à trois génne ballon bi donc ak deux pistons ce qui veut dire que bu ñuy projeté wu ci kaw li mu teg ci ginnaaw baax na mhm. mais ci liens yi moom moo am problème entre millier bi ak attaque bi on a vu en en première mi-temps euh, Ismaïla euh, Sadio ak euh, Habib Diallo il n'arrivait pas à se retrouver tout simplement parce que soo tegee dispositif bu mel noonu il faut des jours intelligents. Mhm. yoo xam ne dañuy am capacité di dugg ci di ci ci ci ci ci milieu bi di décrocher di infiltrer wu. donc loolu la Aliou gis ne y a des choses qu'il faut qu'il faut parfaire dans dans le match et je pense que c'est c'est important et souligner aussi le bon début de CAN du Sénégal parce que CAN bale passé contre Zimbabwe c'était 1-0 c'était très difficile très difficile match boobu. Bon, en 2019, je pense qu'on avait débuté par l'Algérie, qui nous avait battu par 1-0. Donc, le Sénégal débute bien. Mm Mais il y a, y des correctifs quand même à, à porter. Il y à rectifier.